si alors enfin daal di wéyal suñu alors euh, les familles euh, des détenus politiques ñoo ont di jàll euh, si étape supérieure de si ki nga xam modi moo Macky Sall enfin alors nous à la dernière minute euh, c'est exactement le haut conseil bu Nations Unies. Euh, ma kon les familles des euh, détenus politiques de Monodi ñi ngi persister allant dans sens alors donc euh, Régis Tafa ñu lay envoyé li nga xamné que modi euh le communiqué bi nga xam tam itam ces familles def nañ ko lata ñu koy faram-fàccee si nu mu gëna yato exactement donc nak ñom fu mu toll ni ni euh, insister encore une fois que ni euh, il faut une date de top ki n'a xam que Modi Maki Macky Macky nag li fi def mënuñu ko bay ben yoon mu li nga xam que Modi di demee et que yan ak wàllu gànnaaw il faut mu def li nga que Modi di liggéeyam ci ki nga xam que Modi Macky Sall alors aujourd'hui euh, cette haute juridiction des Nations Unies a été saisie par ñom Boubacar Seyi par ses familles Arfan qu'est-ce qu'on peut en déduire donc je ne suis pas d'accord dans la forme mais aussi c'est c'est leur droit su ma je ne suis pas d'accord d'abord mais gàcce la nous la hmm. ñu pour un topp Macky Sall fii Sénégal bés ñu toog famille de victimes là avons une satisfaction au sein de leur pays Nous avons ba c'est une honte hmm. nit am jafe-jafe ci réew mi mënul fexe ba jafe sa saafaraw faju ji nous juger nécessaire interpeller les hautes fonctionnements de l'ENI pour ñu fajal ko affaire am te mu nekk fii Sénégal c'est là où je ne suis pas d'accord si les nouvelles autorités dañoo war a les familles des victimes là parce que lii c'est tellement douloureux pour nga xam ko il faut qu'on nga am sa bu laalee ci les événements là te mu ñàkk bakkanam foofu ngay mesurer l'ampleur ni que dafa métti hmm. mais il a un dossier qui a été qui été qui été qui été créé ba ñu yóbbu ko au niveau de la CPI te ay sénégalais ñoo ko defar hmm. lëkkaloo ak avocat boobu hmm. Juan Branco amul dossier bu mel noonu il un dossier alors voilà donc les li am aussi leneen li am aussi c'est vrai que il y a une loi d'amnésie qui a été précipitée. Hmm. par Macky Sall bala la muy d'Am. il y a une loi d'amnésie qui est là Té loi d'amnésie bobu mënoko ko Tanko tant que abrogé wuñu ko peut-être patience bobu lan les familles détenues mënul am Mota ñu saisir donc euh, la juridiction de l'ONU peut-être patience la ñu mënul xaar. Mm, mm. patience parce que aussi tu peux le comprendre hein. je les comprends je les comprends parfaitement. Mm. len comprendre. parce que c'est tellement douloureux nga ñak sa mu que nous, c'est tellement douloureux donc nous, ñi leen parce que c'est douloureux c'est très douloureux. mais bon euh, Essambi, euh, wax est-ce que exactement assistance. mais Lola, assistance bi c'est tellement dommage sénégalais am jafe-jafe ci mim Si hmm. mu dem c'est tellement dommage nous lay waxé. bu Nous sommes tay, ñom jafe jafé Bobu. ñu mais comme nous ko ñom ils ont jugé nécessaire d'aller envers lit parce que fofu lañu ñu li peut-être amana bu fa démé hmm. dinañ leen mëna taxaw dinañ leen mëna assister dinañ leen mëna a def ba seen sen sen sen safara bi mëna faju hmm. mota ñu dem au niveau de ces juridictions là mais mota tax man dam leen comprendre parfaitement nañ leen taxaw parce que luñu wax luñu wax loolu mo am nous fi ray ay xalé ci ay manifestation ñu gis ay nit di Nous ñu ne lañ tirs. Nous ak fait ak tirs. bal mo leen ray ba on pas les responsabilités parce que Macky Sall dafa créer loi d'amnistie ba pare dam hmm. ba pare dam mais aussi man li ñaan ces familles des victimes là bu ko hmm. patienter touti mais donte ces nañu juridiction boobu bu ONU baxna na baxna hmm. mais concernant au Sénégal il faut que ñu patienter pour ñu tas assemblée nationale bi il faut que nous tas ko toutefois bu ñu tasee assemblée nationale bi ñu mëna peut-être une majorité bu ñu une majorité ñom wa coalition jomay ba paré buñ ko defulee dans ce cas mëna ñu wax ci ñom alors c'est clair enfin. Euh, bu ñu amee majorité ba pare defuñu abrogé wuñu loi d'amnistie boobu dans ce cas ils auront affaire avec les sénégalais. Euh, dem am na comme si doon waxtaanal euh, moom li ma wax mooy Arfan il faut ñu taxawal benn juridiction spéciale haute autorité fii Sénégal pour ñu daal koy war a mën a topp te loolu dafa mais loolu assemblée nationale lay jaar. ok y autre autre coup de justice. mais est-ce que nationale est donc on euh, nouvelles autorités exactement vu que processus est-ce qu'aujourd'hui euh, nous situation. la ça peut se comprendre. peut-être nous avons commencé par les nous avons patience. Hmm. peut-être patience ces des victimes là ils ont, et, elles ont décidé de saisir les juridictions de l'ONU. Peut-être amana dañoo patiente patiente Sénégal ba patiente bi xaar bi yag. Mm. man je les comprends Le je les comprends mais concernant le Sénégal fille il faut que nous xam il faut que d'abord commencer par abroger cette loi d'amnésie. il faut commencer d'abord par avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour le monde ko def te ba pare ces ministres de Macky Sall wala ay ñoom Macky Sall boo leen naree jugé il faut nga taxawal benn haute cour de justice pour moom moo leen mën a jugé haute de justice moo mën a jugé ñooñu te ñooñu haute cour de justice boobu ñan ñoo koy créer il faut que mu jaar assemblée nationale te assemblée nationale bu ñuy gis lii tant que ñoom ñu ngi am majorité boobu ils sont pas prêts à le faire duñ ko def mini Touré wax na ko keneen ak keneen wax na ko député Benno Bokk Yaakaar ils sont pas prêts à collaborer vous ñu bëggee dissoudre comment dire bu abroger la loi d'amnistie ils sont pas prêts à collaborer bu ñu bëggee taxawal haute cour de justice pour juger ay ay ay ay ay autorité yu ay ministre ay ils sont pas prêts à collaborer donc nous leen def confiance à ce point montagne pour le am il faut que président de la république nous la responsabilité dissoudre assemblée nationale bi. Hmm. il faut que ayons le responsabilité de dissoudre assemblée nationale bi donc bu ñu ko dissoudre ñu mën a séntu nous ñu mën a séntu mais tant que assemblée nationale bi li quatorzième législative tant que nous ngi au Sénégal bu mu kenn yaakaar dara dara do am man xaaruma dara ci assemblée nationale bii nii sabli ma woo ko j'ai le droit keneen ak keneen parce que ñoom ñoo def ñu gis hmm. man j'ai mes raisons boo gisee ma ne la man xaaruma dara ci assemblée nationale bii nii j'ai mes raisons hmm. alors tuumalu ma leen ñoom ñoo def sénégalais yi gis ñoom ñoo voté loi d'amnistie en sachant que des centaines de sénégalais ont été tués dans les manifestations ñu lëkkaloo ak Macky Sall voté loi d'Amnesty hmm. cette assemblée nationale assemblée nationale bii nii moo gis ni que Macky Sall warul bokk ci élection ñoom ñu topp ko ci loolu ba modifier le calendrier républicain du Sénégal toxal ay élection en sachant que Macky Sall nekkul ci début ñoom ñu jàppale ko ci loolu on parle de cette même assemblée nationale bi fàtte xaju fii cette même assemblée nationale moo fi tuumal ay premier ministre de corruption ba léegi France daa du si ana corruption yi ñu doon jiiñ Amadou Ba ana magistrat yi ñu doon jiiñ ni que ñoom la ñu kooram anamu débat boobu sa amaana sa fàtte nañu ko ñoom c'est tiré dañoo dugal nañu ko te placard yi ba pare ko jeex na jeex na il s'agit de cette même assemblée nationale là kon yéen da ngeen fàtte assemblée nationale bii nekk nii ci Sénégal jamono bii nii ku am yaakaar ci assemblée nationale bii nii mooy torox torox nga. mooy torox nga assemblée nationale bi faalewul sénégalais yi de hmm. seen propre poche la faale. daal lijjantiwuñu leen. lijjantiwuñu sénégalais yi seen poche la ñuy la man dama def près ci banque bugguma ñu tas assemblée nationale bi ci diggante bi sinon damay torox parce que dama engagé déjà près bancaire en tant que député te ma sama mandat cinq d'ici cinq la hmm. donc na. il faut que ma ma ak nguur gi pour ñu bañ a tas assemblée nationale bi voilà leur intérêt non lolu mo am. ya conflit d'intérêt non conflit d'intérêt la donc sénégalais bu ñu yaakar ni que assemblée nationale bi ñom lañu fi nekkal moy manam sénégalais dinañu continuer du torox dinañu

C'est eh, lañ ko génn. Mimi Touré mom 31 bi li lañ koy parce que dom bu mu à compter de jour bobu lañ koy compter mais elle a raison assemblée nationale bi 31 bi 31 bi li Bili, li je en lay am 2 ans bu féké dañu compter ci anam yu mu hmm. maintenant comme ñun dañuy xaar bañ pour ñu li ko na deux ans D'accord. mais man je fallu li ma la wax je mo am sénégalais pétition bu ñu defoon pour ñu rapatrier Macky Sall bu ñu ko defaatee léegi ñu dissoudre assemblée nationale bi na sénégalais yi def pétition. alors c'est clair ne leen ñoom dañoo bëgg ñu dissoudre assemblée nationale bi le pouvoir va écouter la voix du peuple. Erfan le seul le peuple est souverain donc mi ngi naan exactement y a pas il y a pas euh, problème le collectif des victimes de Macky Sall dépose na nekk li nga xam ne que moo di mardi euh, foofu si au commissariat des Nations Unies. Euh,